tour ngir ñaari at Ousmane Sonko daal di amal beneen génn jàkkaarloog sénégalais yi ngir woo leen ngir ñu amal ab combat boo xam ne dañ fi jëlee président Macky Sall leader bu Pastef nag ratewul benn yoon njiitub réew mu Sénégal te it muy wax ne moom mi lee mi ngi ko jàppee ni ki ab terroriste tamit laata muy wax ne mi ngi mettit lu bu baax agression bi nga xamante ne cortège bu Bougane Gueye Dany am na ko te it muy duut baaraam Macky Sall ne dafa recruter ay nervi rek ñu daal di song ñi xam ne ñooy askan wi ab malaise ci biir force de défense et de sécurité ba tax sax muy ñoom bu ñu daal di song benn yoon askan wi waaye nañu nekk seeni wet leader bu Pastef nag di woo communauté internationale ci situation bi am ci Sénégal laata muy wax ne moom leer ne ko ne njiitub réewum Sénégal di Macky Sall narul jóge ci réew mi te it dina indil bor bu bari Sénégal ngir politique Sonko nag laata muy pare rek di woo ab rassemblement bu mag le 23 juin te it mu gën a insister ci ndaw ñi ne nañu organiser wu fayu ci bépp attaque boo xam ne dund nañ ko mu jóge ci nervi yi nga xam ne moom jàpp na ne Macky Sall moo leen recruter ñu des njiitu Pastef les patriotes ba tey Ousmane Sonko xamle na ni président Macky Sall moomul Fouta tax muy woo sax askanu Sénégal ngir ñu jàppale mouvement Fouta Tampi ndax jàpp na ni Sénégal ci boppam moom moo Tampi ñu déglu ko. dama bëgg a delloo njukkal waa Fouta. juróom-ñetti at a ngi nii bëri nañu doon ngurnguri ci suuf naan waa Fouta dañuy def nett ku bandum naan waa Fouta. dañuy topp lu àndut ak sago kii nga xam ne mooy Macky Sall man ma jàppoon ni peut-être dañoo xawoon a exagérer loolu la xamee woon Sénégal muy jom fulla fayda fit loola ma nga fuuta tey te tey la fa gën a nekk kon waa fuuta tamp yooyu wane nañ ni ñoom ñooy les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal Abdoulaye nan nga jàngatee discours bu Ousmane Sonko defe naa ni euh, si bu njëkk bi jëm si li nga xam ne moo di gros bras di nerf euh, defe naa ni kii nga xam ne moo di njiitu réew mi bu tàmbalee li nga xam ne moo di tournée économique defe naa ni war nañ see gis li nga xam ne moo di force de défense et de sécurité bu ñu nee force de défense et de sécurité mooy police ak gendarmerie bu doy parce que itam njiitu réew mi mooy mooy déplacé wu waaye lu ñu mën a comprendre moo di naka la ñu mën a gis si cortège yu njiitu réew aux alentours du président de la république ay nit yoo xam ne da leen di duppee ay nervi ñu gis ay vidéo gis li nga xam oto euh, ak yeneen ak yeneen mu nekk mbir boo xam ne vraiment dafay tiitalaate donc jàpp naa ni euh, mbir moom war nañ ko xool naka lañ koy mënee teggee euh, ba nga xam ne dinañ topp sax recommandation société civile bi ne bëggatul gis li nga xam ne moo di nervi waaw leneen li moo di jëm si li nga xam ne moo di kuluku du xaw ma samaj ñu xaw ma nu ñu ko waxee noonu donc may jàpp ni non dama ne loolu nag war ñu see yegg war ñu see yegg dans la mesure ou Sénégal dafa soxla stabilité Sénégal dafa soxla jàmm Sénégal dafa soxla dal boor bu ñu mën a dem daf naa ne war nañ mën a am ay solution alternative yi tax Euh, mbir moomu da nga maam doot ñu gisati gros bras parce que tam gros bras bi ñu koy gisee si wàllu pouvoir bi noonu la koy gisee tam si wàllu opposition bi donc chacun a ses gros bras war nañu fexe ba nga xam ni mbir moomu dina soppeeku dina changer li fi may jaaxalee nag moo di Fouta Tampi dëgg la parce que depuis 2012 daanaka mosuñoo gis manifestation dans le nord du pays c'est la première fois mi ngi montré tamit benn degré peut-être de désapproba désapprobation par rapport aux politiques publiques yi nga xam ne amaana waa Fouta ñenn si waa Fouta jàpp nañu mbir mi sooxee na fa mbir mi manqué na fa. ci gros bras yooyu la ñuy des euh, ba tey Abdoulaye Mbow ñu nemmeeku woon leen ci tournée économique bu président Macky Sall ñu doon bundu xatal askanu xaar yàlla ñu nekk ca diwaanu euh, Ndar naka noonee nag euh, ñu fàttali bu baax ni ci wàllu politique ay nervi yàgg nañoo ond ak ay way politique bokk na ci tonton Macoute Calo Bleu Marron du Feu muy ñoo xamante ne duñu ba jóg ci di bundu xatal askan wi ngir jàppale régime yi nga xamante